ay yi jërëjëf tey wane ngeen nii ñi fi teew xam nañ lan mooy priorité Sénégal priorité Sénégal du kan moo war a jiite opposition ak lan lañ ko war a jox lu muy àndal priorité Sénégal du kan mooy won sëriñu kan ak kan a bokk kan école priorité Sénégal mooy li nga xam ne mooy wërsëg gi ñu yàlla wërsëgalee te benn groupuscule de sénégalais toog ci di ko sànq depuis indépendance ba léegi te loolu mu doon saafaraal suñuy problème ak suñuy jàngoro loolu lañ ne su fi jeexul tant que jeexu fi wallahi dinañu changé ay régime waaye boo fi andoon ay yonent sax du développé Sénégal képp xam nañ ni tey déplacé ci Dakar jafe na waaye mobilisé ngeen ngeen ñëw fii ñu wax leen nag ni combat bii ci kattanu yàlla ndax yàlla dëgg rek lay àndal combat bi on va le gagner ndax biñ ko yëkkateeg léegi stratégie bu né utiliser nañ ko pour allumer des contre-feux coupe d'Afrique jaar na fi ay combat de lutte jaar na fi coow yi ñu andi temps yëpp nga xamné pour divertir sénégalais la lépp pour fexé ba essouffler le mouvement waaye le mouvement est encore là vivant il est encore là debout à travers vos personnes suñu pétrole suñu gaz bu dee am na lenn lu ci dëgg rek. bu am na lenn lu ci dul deug yalla ma yalla sank coow li bëri na lol mais du ngeen musa a dégg une plainte parce que li ñi wax yépp lu am la wallahi lu am la mané tay ci suba jot nañu ab article bu wax ni Cosmos 30 pour yi ko déssé won ci suñu gaz 20 pour yi jaay na ko eh, compagnie nationale Abu Dhabi xam ngeen lolou ñuy def di jël alalu Sénégal di ko jaayantu ay nit di ci am ay milliards yi milliards yi milliards depuis Petrotim ba jaar ci Timis jóge ci Timis dem ci Cosmos jóge ci Cosmos dem ci BP léegi ñu ngi ñi ñu ngi ci Abu Dhabi kenn xamul Sénégal ñaata milliards la ci perte te liñ ci waroon am sax ci fayeku ci impôt duñ ko ci fayeku balaa ñu naan nañu wax ci inondation bi peuple sénégalais laa bëgg a waxal nit su la dara dalee bul xool li ñuy wax symptômes yi manifestation yi il faut nga analyser ba xam jàngoro boobu lan mu fan la jóge mooy lii lépp ñu amoon ko ci capacité waroon ko delloosi ci réew mi muy génn looloo tax tey mu ñu saafaral inondation mu nu saafaral hôpitaux yi mu ñu saafaral école yi parce que moyens ñu waroon am mu dellu si ñun Macky Sall ak ñi mu àndal jébbal nañ ko ñeneen toog di ñu seetaan te ñoom am nañ ci seen i milliards. ba tax j'appelle je lance un appel fort au peuple sénégalais wax naa keroog nii.

diggante Sénégal et Turquie Moi, je Sénégal Comment c'est ci tu lu bok? bokk c'est un combat citoyen c'est pas un combat politique li xew Algérie du parti politique citoyen yi la li Soudan du parti politique citoyen yi la li xew Hong Kong du parti politique citoyen yi la li France du koy gilet jaune du homme politique citoyen yi la man mii en tant que politique fi en tant que citoyen askanu Sénégal nañu yeewu te bàyyi caaxaan bi ñu leen di divertir ci ay débat yoo xam ne amul benn solo ñu xëy suba ba ngoon di ci di ci dissertation te loo boobu jamono li woon farata ci réew mi ñu ngi koy bàyyi ci gannaaw combat bi nag mun nañ ko gagné. li jëm ci faire Falémé nee naa lañ ca am ci possibilité ak ci alal mat na lu ëpp 80 pour cent budget Sénégal ndax dinañ toog di ko seetaan ba Macky Sall sànq ko. lenn ko mobilisation exceptionnelle partout sur le territoire national la jeunesse les moins jeunes les milieux professionnels les syndicats syndicats enseignants augmentation du salaire Sénégal li andi ressources na nit ñi mobiliser wu te bañ jàpp ni xeexu Masamba du Fou Malade du Cheikh jaan Dieye du Thierno Bocoum du keneen ak keneen ndax léegi Abdourahmane Sow wax na ko bu sotti woon it man duma ci ëppale kenn kon Sénégal nañu xam ni yàlla wàccu nag wàccoo ak ñun bu yàgg yàlla ni mu waroon def ak ñun ñëpp jox def na ko ba noppi waaye yàlla nag du la du la jox lépp ba pare ñëw wittil la ko saxal la ko li ñeneen ñi def am seen fulla ba tey seen àllal développé na seen réew bu ñu defoon la moitié développé Sénégal kon xeex boobu mooy xeex bi may wax nag ni lu weesoogul mooy feeru Falémé bi lu weesoogul mooy zircon ñafran bi waaye li nga xam ne it tey dafa laaj xeex pour ñu récupérer ko muy pétrole di gaz bi zircon bi nekk jogo ak leneen ak leneen ak suñu jën gi ak leneen ak leneen su sénégalais yi mobilisé wu massivement Macky dina xam ni moomul réew mi moom ak Aliou Sall ak Aly Ngouille Ndiaye ak keneen ku mel ni ñoom te nañu delloo suñu alal bu boobaa suñu mbokku alkaati yii nga xam ne sax ñu ngi leen def loo liggéey bu métti te ñu xam nañ ni neexul seen xol ñoom seen bopp nañ ci gis seen bopp. loolu mooy message bi appel à la mobilisation permanente ñu ngi leen di gërëm di leen sant asalaamaaleykum.